allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah mbokk yi yàlla bu dee indi meram ak sànjam amul kenn ku ko mën a dékku amul benn grande puissance bu mën a taxaw ne da ngay dékku ay mbugali borom bi wala da ngay dékku ay nattom xanaa rek la lay musal mooy nga dellu ginnaaw ginnaaw ba nga tàmbalee bàkkaar bàkkaar nag mbokk yi fekk mi ngi doon par benn benn mën nañ ñi xawul grave waaye su demee ba société tàmbali koo jël di ko appliquer nit ñi commencé di ko bokk mu dem ba rëyatul ci seeni kanam tuuti lool su boobaa mbokk yi nañu xam ni bàkkaar bi tàmbale naa jël daanaka benn ampleur boo xamante ni mbugalam yàlla xaj na ci te bu yàllay mbugal du yem ci ñi bàkkaar rek waaye ñi bàkkaar ak ña leen ko jàppale ak ña ca nekk complice ak ñépp la yàllay boole lan moo tax yàlla di boole ñépp mooy dañoo war a taxaw kenn ku nekk dégager say responsabilité ci kanamu bàkkaar yooyu ndax ki ñuy tooñ ëpp lu koy tooñ te moom mooy yàlla mbokk yi mbokk yi na yàlla ci kaw suuf mooy amul kenn kenn amul société lu dul ba ñu gàttañ loo ci def lu leen neex di tooñ yàlla ci waxtu wu leen neexee moo xam ci bokkaale la moo xam ci jëf yu ñaaw la moo xam ci bàkkaar yu mag yi la mbokk yi képp ku dëkk ci loola yëgal ni amatoo sécurité ci kanamu yàlla waxtu wu nekk mbugal mën naa ñëw dal sa kaw yow rekk mbaa mu ñëw dal sa njaboot yàgg sa njaboot mbaa mu daj réewum lëm mbokk yi nañu jàngat xeet yi ñu weesu lan moo taxoon mbugal ma daan ñëw di dal seen kaw di yóbbaale ñeneen ñeneen ña waroon a wax dañoo noppi woon ña waroon a wax dañoo jëloon baatub maandu leen comme ni ko sénégalais yi di defee tey nit day def tey bàkkaar bu mag musiba bu rëy a rëy nga wax ca ñu ne waaye diw maandul xamu leen ni xeet yi li leen alak loolu la woon maandul fekk conseil mi ngi jóg ci ab société kenn du wax déet ñépp noppi borom xam-xam yi noppi sëriñ si noppi mu mel ni bàkkaar léegi dagan na góor jigéen mag ndaw ñañu yaakaaree wax bu fekkee noppi lañuy bàkkoo mooy société boobu feebar na ñañu yaakaaree ñu wax muy sëriñ sa imaam ya ustaaz ya borom xam-xam ya su fekkee ñoom léegi dañoo jël modelu maandu ne moom lañuy jaay jaay ni dañoo comprendre jamono jaay ni ah jamono moo ko laaj ba ñëpp noppi mbokk yi loola nag mooy gën a waral merum yàlla ndax ñu xamul ñu ngi tooñ yàlla waaye ñi xam nag di ko saxal lan mooy ñi xam di ko saxal mooy ña waroon a jóg ni déet déet déet déet ñooña ñoo ne cell ñooña ba ñu ñee cell ça veut dire kon daganal nañu léegi mooy yàlla bi mbokk yi xanaa xamoo ki gën a dof mooy ki wéeru ki wóolu pexem yàlla moo tax borom bi nee na afa amina ahlul qura an yatiyahum basuna bayatan wahum naimun moo ndax waa dëkk ba daal dañoo wóolu yàlla daal jàpp rek yàlla noonu daal tëdd seen kaw lal di nelaw ndax loolu ja am na kóolutéef yow jamono ba nga bàkkaaree tëdd nelaw mooy yow yaa gën dof parce que libéré nga sa bopp yàlla jamono ba ñuy def bàkkaar di tëdd nelaw nga xamante ni guddi yi ay concert ñaawteef lañ ciy def hôtel yi lañ fiy def ci guddi yi auberge bàkkaar lañ fiy def ci guddi yi bu guddi yi tànnbeer fecc ñaawteef njaaloo naan sàngara def lu bon ngóor jigéen pornographie lépp ay nit di ko def ci am réew te mu néew ñu mën a taxaw ne déet mbokk yi société boobu feebar na loolu nag moonu dal suñu société tey mbokk yi wallahi ladi laa ilaha gayru waxuma ni feebar na bal mi ngi sukkuraat mi ngi sukkuraat mbokk yi bàkkaar yi yaatu na tey jóge na ci biti ñëw fekk suñu ci biir kër yi ñu koy gis guddeeg bëccëg waaye gis biñ koy gis dafa dem ba dafa tàmbalee daganal bàkkaar boobu ci ñun léegi nekkatul lu garaaw mbokk yi ñun ñépp dañoo bokk nekk ci benn bato noonu la ko yonent bi misaale kulluna ñun ñépp rukkaabu safina waaxida ci benn <coughs> bato la ñu yëg bato bi nag dafa def deux ponts am na ñu nekk ci suuf am ñu ne ci kaw gis nga ñi nekk ci suuf su fekkee ñu ngi yàq di tëb di dugg ci ndox mi di cëpp-cëpp ci biir bato bi ñi ci kaw toog ca kaw tëdd ci seeni lal ne ñun amuñu problème ndox mi laaluñu ñun moom no problème ñi ci suuf di yàq léeg-léeg kii jël sémmiñam dóor kii jël paakaam dóor nga ne eh maandu leen waaye seen yoon ne ko ci dëkk bi moom ku mu nekk ku mu neex lu la neex defal kenn ku nekk am na droit def lu la neex ngeen foog ni bu gaal bi suux ñi ci kaw dinañu mucc wallahi duñu mucc lan moo tax duñu mucc parce que danoo seetaan su fekkoon ni ba musiba yi am am ñu nekk ci suuf di bënn ñii di tëb di sangu ñii di yàqu ñi ci suuf wax ñi ci kaw wàcc ne hé bu leen ñu fonto lii bato la bu ñuy bokk ñun ñépp du ñu seetaan ngeen di ko yàq ñun ñépp ñuy dee taxaw su ñépp taxawee ba ñu bàyyi bu jàmm amee ndax ñépp duñ ko bénéficié wu mooy ñépp dañ koy bénéficié wu waaye bu ñu jëlee nag toog ne noonoo garaawul man sama yoon nekku ci ah, man sama néeg laa nekk man sama kii laa nekk loolu ñëw na ci xadiisu Nu'maan ibn Basiir bi alimaamu Buxaari yi génne gis nga ki taxaw ci tere yàlla yi ak ki taxaw ci frontière tere yàlla yi noonu la ko yonent bi nettalee nee na dafa mel ni benn gaal bu def ñaari étage ñi ci suuf di yàq ñi ci kaw noppi ñi ci kaw ne bu ñu waxee ñi ci suuf mer ñi ci suuf ne ñun faalewuñ ñi ci kaw su fekkee da ngaa ragal ku mer comme li dal tey boroom xam-xami tey ñu bëri ci nit ñi tey dañ leen a agressé seeni ngëm-ngëm dañ leen a agressé ñemewoo wax en tant que boroom xam-xam parce que boo waxee ñu commencé dal sa kaw boo waxee am mbooloo mu jóg dal sa kaw ki nga wax ci moom mu mën a jóg wax ci yow lu ñaaw a ñaaw ñépp noppi am koo xam ne waroon naa wax ne ah bu ma waxee kat ñu def ma li ñu def sawaay kon naa noppi ñun ñépp ñu noppi su musiba bi amee ña def ak ña noppi ñoo bokk benn àtte mbokk yi saabu natt di ñëw mbugal di ñëw noonu lay ñëwee du tàqale day matale ndax kat inna batsha ka la shadid yàlla dóoram dafa tar kàttanam dafa bari dóoram tar kàttanam bari ñu di ko merloo lay la naxaar guddeeg bëccëg bëgg a jël mer yooyu léegi commencé koo daganal bëgg a jël sànjam yàlla moomu commencé koo daganal ah su boobaa nag musiba am na mbokk yi loolu la yonent bi doon bañal xeetam ba benn tàkkusaan mu génnoon demoon ci benn tool ci toolu waa lansaar yi nga xam ni yonent bi daana fa dem léeg-léeg naan fa ndox ndax bokk na ci tool bi gënoon a neex ndox teenam tàndarma yi bari lool yonent bi ñëw di fa keppaarlu jékki ba ci yàgg rek jóg rek waaxu waxul kenn dara waaxu rek li leen saxaaba yi topp ko pëtëm pëtëm pëtëm yonent bi waaxu yonent bi sallallahu alayhi bi mu waaxoo rekk ñëw jubal dugg néegu sunu yaay Zeynab bint Jahsh bi mu fa duggee yonent mel ni ku tiit mel ni ku ñu wan lu ko tiital ma nga naan laa ilaha illa allah waylun lil arab min charrin qad iqtarab laa ilaha illa allah arab yi alku nañ musiba ñëw na al yawma min radmi yajuuja wa majuuja mithla haadih futiha al yawma min radmi yajuuja wa majuuja misla haadi yonent bi nee arab yi alku nañ torox nañ nit ñi alku nañ torox nañ yajuuj ak majuuj fa ñu leen tëjoon ñuy gas bis bu nekk léegi dey yàlla yombal na leen ba gas nañu pax bu toll nii futiha al yawma min radmi yajuuja wa majuuj wa xallaqa bi asbiihi wa asal yaay Zeynab soxna yonent bi di sunu yaay ñun ñépp ne fa qultu ya rasulallah ma ne ko waaw yow yonent bi anahlik wa fiina saalihun muy question bu am solo anahlik wa fiina saalihun ne ko waaw yow mi yàlla yónni moo ndax ñun dinañu alku yàlla dinañu alak te am nit ñu baax ñu fi nekk saxaaba yi yow ñi ragal yàlla question boobu ñun war nañ ko poser léeg-léeg bu fitna dee ñëw nga ni nga dégg na non sëñ diw dina ko gàddu dina ko garanti non feeg feeg ñu ngi nangam Sénégal ay diw a fi ñaan feeg Sénégal nangam mag ñee fi jaar nangam nangam mu mel ni ñun dañoo wóolu nettu yàlla ak mbugalam parce que am nañu ay ponkal yu ko intercepté am nañu ay waliyu yoo xamante ni mbugal mu yàlla indi ñoom dañu koy góolu pour sénégalais yi am jàmm ñun noonu lañu ñu déggee mbir yi quoi non fekk mag ñaa ngi fi ñaanu mag ñi nangam nangam te ku nekk di def lu neex ku la gën a mën a wax ni mag mi la gëm moo la gën a bon jëf ki la gën a mën a wax ni taalibe mag mi la moo yées ci nit ñi ki gën a mën a bàkkoo sëriñ bi moo dàq def bàkkaar moo dàq naan sàngar moo dàq njaaloo moo dàq bokkaale moo dàq def lu xaram moo dàq def lu bon parce que dafa dégg ñu garanti ko ne ko ku ànd ak diw àjjana nga jëm dafa dégg ñu ne ko yowmal qiyaam ko ànd ak diw da ngay jàll loola moo ko may audience muy bàkkaar layla nahaar déggul ku ne déet bu amee keneen ku ne déet mu tëb dal ci kaw kookee ndax ka mu yaakaar nee na ko danaa la nangam wala waxal nañ ko ko foofa dara génn fa lu koy wan ne lii du dëgg kon nan la ñuy def mooy dañuy nuur ci bàkkaar wal iyaadu billah société bi dafa nuur ci bàkkaar kenn ku nekk ci nit ñi am na koo teg sa kanam jàpp ni kookee mënal na la dara ci kanamu yàlla moo tax nga am sañ-sañu def lu la neex amoo ci tiit amoo ci ragal parce que jàpp nga ni day baax Zeynab sunu yaay bi mu ne yonante bi anahlik wa fii na saalihun ndax danañ ñu alak te nit ñu baax ñi ne fi imagine leen mbokk yi nit ñu baax baaxi démb ak yu tey yi ndax tolloo nañ ah sunu mag ñi ndax tolloo nañu ak ñi baax démb yëpp wallahi tolloowuñ sunu mag ñi kan moo ci tolloo kenn ci doomi saxaaba ya amu ci kan moo ci tolloo kenn ci sëti saxaaba ya amu ci ndax xeet boobu moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñi gën ci xeet yi mooy ñi ma sës ak ña ca topp ak ña ca topp kon amul benn taabiina bu tolloo kenn ci suñuy mag ñi amul su ñu mënee dem nag ñooña mbaax ga ñuy mbaax teewul yàlla di def mbugalam nit luut ba yàlla di mbugal luut mi ngi taxaw seen bi mbaax ci luut la yem ndax yàlla yónni na ko nitu Muusa Firawna ak nitam Saalix Huud Nuux ñoom ñëpp bañ leen di mbugal sa yonent mi ngi taxaw mais ndax tax na sa yonent am audience su mën a teeloo la mu ñëw ndax am na déedéet amul ñun ñu bëgg a nangu ne ñun lu ñu neex ñu def kenn jarul wax ñu jël mbir mi nag léegi def ko fawukaay te ñi koy def fowukaay jàpp nañ ñi am nañ fi ñu weeru mbokk yi tey fii ñu toll ci suñu société bii waxuma sax bokkaale bokkaale moom am nañ ci agrégation moom Sénégal bokkaale moom agrégation lañ ci am parce que ñun moom layla nahaar nu ñu neex lañu koy defee amatuñ ci tiit dem na ba léegi bokkaale dagan na dagan na kenn ci ñun bu waatoon tey yow doo ci tiit ñi taxaw ni parce que Omar Sall yow mi ñu ko wax sawet da nga waroon tiit tiis taf say nopp ndax musiba bi nga dégg mais léegi dagan na ba subhanallah ndax di nga dégg ci ku ko ku ko naqarlu déedéet ngay dégg ku ne Omar Sall moo moo yore yëf yi su neexee yàlla neex Omar Sall dem na ba nopp yi da koo tàmm tàmm ba léegi nekkatul bàkkaar kon ñun léegi agrégé nañ ci bokkaale àgg nañ ci lu ñu neex ñu wax ko yàlla àgg nañ ci yonent bi ñu def ko moroom àgg nañ ci yëkkati ay mbindeef teg leen ci place yàlla kon agrégation bàkkaar moom sénégalais yi ñoo ko am moom wallahi li ñuy bàkkaar doo dem Togo nga fekk fa ñu ko fay def doo dem bene nga fekk te fa pourtant foofu la yéefar yi ëppee mais yéefar yi lu ñuy yiis yiis yiis àgguñu nag ci jël yàlla teg kenn ci kawam ñoom àgguñu foofu nag àgguñ fa nasaara yi ñoom fu ñu àgg dañoo wax rekk ni Isaa doomu yàlla la xam nañ ñi baaxul waaye yàlla tiim na ko Useyr yahuudi dañ ñi doomu yàlla la yàlla tiim na ko ñun lan lañu wax diwa bind yàlla du ngeen ko dégg suñu réew du ngeen dégg suñu réew bu diw yaakaaree ku dul diw yenn yàlla jóge fële kon ñun li ñuy bàkkaar ci wax ju ñaaw amul ci benn dëkk ci kaw suuf saa moom maa la ko garantil doxal ci àdduna bi wër fu nekk demal siin duggal fu ne di gis ku def bàkkaar bu nekk waaye ci bokkaale moom ak bu ñun fii ñu àgg tey mbokk yi ñu àgg nag ci léegi ñaawteef waxuma ci jikko mais dañoo roy tubaab yi ba raw leen léegi suñuy xale yu jigéen suñuy xale yu góor waxuma sax bàkkaar nëbbatu mais léegi dañuy bàkkaar wane ko ci image yi tele yi ma ko ci télé yi da ngay gis xale yu góor yi nit mën a taxaw jël awraam di ko wane pour moom dara ko ci parce que tuutil na ko àgg nañ ci tey suñuy théâtre kat àgg nañ ci suufe torox ñàkk jom bon fa mbon àgg ñu mën a léegi di jouer ay film pornographie ay wolof di ko joué ay sénégalais di ko joué ne ay jullit lañ def mbon mbon boobu waroon a tiit làqatu ñëw di défendre mbon boobu di ko défendre non non mbonu dix minutes la rek quoi dara newu ci pour léegi mbon moom même ay seconde non seconde def naa loolu la wax quoi yaa ngi def solo bon en tant que réalisateur en tant que producteur nga joué ab film mën a jaaxaan daf yaramu neen jigéen mën a toog sa kaw jàppoo ne jigéen ji sa rakk bu jigéen la ndax defoo ko sa rakk bu jigéen bi nga bokkoon ndey ak baay defoo ko de producteur bi jëlul rakkam bu mu bokkal ndey ak baay xam nga man ku ma ku ma ku ma jéppi mooy ku jigéen ki nangoo jouer rôle boobu nangoo futteeku sol nuisette toog ci kaw góor jël sa loxo di ko teg ci awram en tant que sénégalaise ki la ko defloo di la fay boo ko noonu jëlal sa sër nga def ko lu mu lay tontu da lay dàq da lay dàq na rek ne la non lii du dara ku ko benn séquence bu gàtt la séquence su deux secondes la rek grawul quoi ñun démb ay novelas lañ daan gis yu mel noonu nga xam ni àggoon nañ sax ci yenn yi ku koy seetaan ñu la interdit au moins de dix-huit ans ci cinéma yi lañ ko daan def ñi ñu bon ñoo daan dem di ko seet mu yem ci ñoom tey dañ ñu ko indil dañu daan làkk tubaab di ko def tey olof la ñuy wax kër gi papa toog yaay toog nag toog nga bàkkaar war a tiit war a jooy nga taxaw nag di défendre sa bàkkaar man lii moo ma jooyloo moo ma tiitloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dana baale bàkkaar yépp ba mu def bàkkaar bu ñu siiwal mu jaaxal bàkkaar nga def bàkkaar ñeme osé ñeme toog di défendre bàkkaar boobu wallahi ladi laa ilaha gayru ku yées la te war nga tuub àgg nañ léegi foo xam ni suñuy xale yu jigéen bañatuñu dara dara dara suñuy góor bañatuñu dara dara dara mooy léegi mœurs rien faaleetuñ ko ci ko faaleetuñ ko melokaan mais yow xale bu jigéen bi est-ce que yaa ngi bàyyi xel ni lii des na dootul dem te yàlla wax na ko de ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والله دغا taxaw يوم القيام ñu génneel la séquence ba nga toogee ci kaw góor da taxaw yowmal qiyaam ñu génneel la séquence ba nga taxawee yow ku guur ki di génne sa awra yow ku jigéen ki di génne sa awra yàlla dana la ko taajal tegal la ko te booy dee di ko gis ba pare nag nga xam ni def nga ko nga dekk yowmal qiyaam ñu teg ko sa kanam ne la iqra kitaabak kafa bi nag al yowma alayka xasiba liiral sa téere yaa ko def kenn def la wala ko woon liir ko yaay taxaw ne yàlla man maa ko def su boobaa ndax da nga mën a jëf ju ñaaw ju bon jooju jëf ji bi nga koy def ndax xalaat nga sénégalais yi nga nar a yàq ay doomi gor ay doomu julit ay jigéen ñu nekk seen néegu sëy xam ni sax li ñu xam sax bariwul waaye am nañu télé ci seeni kër yow nga ñemee nekk réalisateur walla producteur walla caméraman ngeen programmé ne nañu joué film bi séquence bi séquence deux secondes la xanaa xamoon ni mbokk yi deux secondes tas na am réew deux secondes yóbbu nañu safara billahi ladi laa ilaha gayru deux secondes yóbbu nañ safara yow nga naan benn séquence su dix secondes la ose nag ñemee taxaw da ngay xam ni kii xamul ci li mu nekk te balaa mu koy xam dana fekk réccu fekk na jëf way yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne laa taqumu saa xatta tatasaafadu fi tariq tasaafud alxamir qaala ibnu umar inna dalika la kaa ya rasul qaala naam la yakunun yonente bi sallallahu alayhi wa nee na jamono ngi ñëw nit ñi danañu sëy ci mbedd yi comme ni mbaam yi di sëyee seen biir ibnu umar tiit ne ko loolu dina am yonente bi ne ko dana am tey xale yu jigéen yi mbokk yi tey ñàkk jom gi nekk ci ñoom ak yu góor yaa ah, ñu baal ma ñàkk kersa gi nekk ci ñoom ñaaw jikko di nekk ci ñoom melokaan wu ñaaw yi nekk ci ñoom mu bir la ne lii baxima yi sax rus nañ koo mel foofu ñu àgg tey mais ana nitu diine yi ana kilifa yi ana ana ñi garanti Sénégal ana sëti sëriñ yi ana doomu sëriñ yi ana les xalif généraux mais ñoom dañuy toog rek ni miig rek noppi dëkk bi di tas rek ñu ne moom xamu ci dara mais yow mi ci xam dara wéeru ci moom yaa ngi koy wax te li gën a dangereux mooy ña koy def producteur film yooyu bu ñu ñëwoon ci xew-xewu këru diina yi ñoom lañuy njëkk recevoir ñu ñëwee ñoom lañuy ñuy nekkal lu la neex amal xaalis boo joxe rek amal tur soo amee tur këru kilifa diine yi kër goo dugg ñu ubbil la bëkk nekk kër programme la nga dugg jàkkaarloog sëñ bi wala <coughs> tufli la nga dem tufli la nga dem pour moom yow léegi nga jàpp ne yow moom texe nga nekkal góor jigéen nekkal lu la neex defal li yées ci kaw suuf kenn dootu la daw léegi yow yaay taxaw ci kaw nekkal ku baax nekkal ku ragal yàlla yow yaa nekk ca ginnaaw kenn faaleetu la mbokk yi ci jamono boobu lañuy ñuy dund muy jamono bu jooylu yow xale bu jigéen bi yow mi joli wala yow mi nekk ci tiktok bi foog nekk sa biir néeg foog ni rek da def lu la neex jël benn séquence bu gàtt rek sànni ko xanaa xamoo tiktok bi lu ci dugg jeex na dootul génn xamoo ne lu fa dugg dootul génn at mu nekk nag ñu génn ko rappelé la ko mu nekk sa anniversaire jour bi nga defee mbon bi moo xam da ngaa taasu da génn sa jëmm danga génn sa taay da génn tey bu ñu demee ba mbon googu ñi ñu yaakaaroon ni ñoom ñoo ñemee taxaw ci góor ak jigéen pour teer lu bon ña bon bon googa nag bañ ko wax ci bon gi ñu créé yeneen mbir xam ngeen fan yi yeneen gis ay yoo xam ma tur bi ni ñu koy wooyee sax ay xale yu jigéen yu jilbaab di way xaw ma ñoom la xaw ma du ñoom wax dëgg yàlla ñemewuma ko garanti ñemewuma ko <coughs> laakin yàlla xam na li may wax bu fekkee ñi ko def dañu ko monte ngir suufeel aw nit wala dañu ko monte ngir ñii bañ a wax moo tax ñu def ko ay xale yu jigéen yu jil baabu ne dañuy taasu di def yi gaa yi di def nii non man dama ko xool ba toog ba si yàgg ma ne non subhanallah mais ñun ñu ngi gën a jëm ci suuf ñu ngi gën a jëm ci suuf ñaar nag mën na nekk <coughs> bu dee <coughs> ña ko def ay xale yu jigéen yooyu ay ibaadu lañ seen tooñ yàlla moo gën a grave tooñ yàlla ki dul ibaadu ndax lu mu bon bon deññ ñu réer xam nañu mbon lan moo leen xiir ci ñu jóg sol seeni jilbaab di taasu xam nga gis nañu Europe ay jigéen yu ñu solloo jilbaab joué loo leen film pour rien que rek dénigrer jilbaab ci kanamu jullit yi pour rien que dénigrer niqaab ay góor sax solloo nañ leen niqaab def loo leen kamikaze ñu jàpp na ay jigéen lañ parce que ñuy juger du ñu xam mais ñi ko def su fekkee ni xam nañu tooñ nañu yàlla tooñ bu mag a mag a mag a mag tooñ ko seen bopp ñi ko def su fekkee tooñ lañ ci jublu bàkkaar bii dinañ ko layoo bu fekkee ni yàq deru jàmbur lañ ci jublu dinañ ko layoo su fekkee ni dëgg la ñoog ñay def lu bon ñoo gën a bon ñi bon bu ñu foog ni mukk dañuy toog di défendre kenn ku jilbaabu wala ku kaalaw walla ku sikkim diina yàlla ji ñépp ci yem ku ko def kaa inan man kaana xaw dans tur ba sax doo xaw ma ibaadu toujours tasar xaw ma loolu subhaanallazi subhaanallah ña def lu mel na bu dee lee lañ ci jublu yàlla xam na yàlla dara réeru ko mais fàttalikul ni incha allah danga nga dee da dee te balaa ngaa dee malakal mawta di ngeen jàkkaarloo nii sa bët mu jàkkaarloog yow loola moo tax kuy sukkuraat xulli bët yi wallahi sa tamutiin wa sa tuxsalin wallahi yow mi def lii yow soxna si yow mi jee porno bi yow mi tiktok yow mi def lu xaraam lii wallahi danañ la futti ba nga set sang la ci morgue lañ lay dugal danga ko fàtte danañ la sàng danañ la yenu yóbbu la ci armeel yi sëriñ boo yaakaar yaakaar ko na ñëw jullee la na la ñaanal insha allah sa taqifiina amaam allah wallahi ladi laa ilaha gayru da nga taxaw jàkkaarloog sa borom laysa baynaki wa bayna allah tarjumaan sa digganteeg yàlla dara lu fi dox yow yaay taxaw yaay waxal sa bopp yaay waxal sa bopp maa joué woon pour porno maa defoon tiktok maa waxoon lu ñaaw maa yàqoon deru jàmbur maa yàqoon turu jàmbur maa nangamoo woo nangamoo sa tandamin wallahi da nga rëccu léegi nag fa ngay rëccoo la problème bi nekk ndax dana jëriñ moom la borom bi naan yawma idin yatazakkaru l insaan wa anna lahu zikra yaqulu yaa laytani qaddamtu li xayaati yàlla nee na keroog bis nit dana taxaw rëccu waaye réccu fekk na jëf way yawma izin yatazakkarul insaan wa anna lahu zikra yow xale bu jigéen bi danga taxaw nga fàttaliku nga rëccu waaye wees na yow xale bu góor bi danga taxaw nga fàttaliku nga rëccu waaye wees na yow producteur bi yow caméraman bi yow mi nga xam ne yaa finance film bi yow mi ci ut alal alal bi yépp di nga taxaw benn benn nga di ko wax yàlla yow mi def bàkkaar bi wala tuub wala jéggalu yàlla sa diggante ak sa borom nga di ko défendre da nga taxaw yatazakkarul insaan da danga taxaw ne ndeke kon man la ma dul défendre lu bon la wa anna lahu zikra léegi fàttali boobu lu mu lay jëriñ borom bi ne lan lay mujj wax ya yaa laytani qaddamtu li xayaati moo tax xale yu góor yi xale yu jigéen yi àdduna moom ku nekk xam na ni yàqu bi dem na yàqu na ñi war a wax bu leen xaarati mukk ñu wax des na tuuti ñu ngi ci monde bopp sa bopp jamono yi bopp sa bopp ci lañ bëgg a dugg parce que kiy def lu bon bu amee fitu def lu bon ki war a wax ragal a wax mooy foofu mooy muntaxal fasaad yàq fa mu yem dëgg-dëgg mooy ki dem ba kiy yàq amatul gêne ki war a tere yàq moo am gêne mooy mel ni bëy bu taw te ne cal muy imaamu jàkka muy ustaaz muy borom xam-xam muy sëriñ ñemeetul wax xool leen léegi wàllu góor jigéen ñi ci ñemee wax bariwuñ parce que boo waxee ñu yuuxu la menacé la napp la nga ragal nga tiit mbokk yi fan lañu jëm fan lañu jëm société bi fan la jëm da ngay toog di xalaat boo amee tuuti ci ngëm yàlla tuuti ci ngëm yàlla jooy ngay nekke jooy ndax da ngay xam ni fii ñu jëm baaxul te wala yaadu billah imam ahmad daf ñu nettali benn xadis bu xudayfatu bnul yaman yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne wallazi nafsi bi yadi la taamurunna bilmaaruf wala tanhawunna an ilmunkar aw la yuushikanna allahu an yabasa alaykum ciqaaban min indi summa la tadcunnahu fala yastajibu lakum yonent bi nee na giñ naa ci yàlla mi nga xam ni sama bakkan mi ngi ci loxoom di ngeen digle lu baax ba faw di tere lu bon wala yàlla yebal ci yéen mbugal boo xamante ni dangeen ko ñaan du nangu ñaata ci ñun tey ñooy ne allah allah du nangu lan moo tax parce que bët yi dafa tàmm gis bàkkaar rusatu ko nopp yi dafa tàmm dégg bàkkaar tiitatu ci tànk yi dafa tàmm dem ci bàkkaar tiitatu ko léegi amatoo problème mu bàkkaar da ngay dem géej xale bu jigéen futteeku mel na ko yàlla bindee woon amul benn seen xale bu góor la même chose mu mel ni léegi ay bëy yu nekk ci àll ay bëy yu nekk ci àll kenn amatul rus kenn amatul tiit foofu bu ñu fa àggee mbokk yi mooy kenn ku nekk ci ñun na jël sababam borom kër yi jël leen seen sabab te dellu ginnaaw noo nga ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na ubbi suñuy xel ba ñu mën di dégg li ñuy wax ndax dañuy toll ci jamono boo xam ni wax dafay jafe saa boo waxee rek mu mel ni dafa am ñoo jublu mais mbokk yi lii ñuy dund nii ci suñu réew mii ku xam xam nga ni foo ñu jëm baaxul te kenn naruñu ko indi nag lu ñu théâtre yi ñoo jël mbaritu Europe yëpp indi ñu ko ñoo ko jëli indi ko pour ñoom ut alal la am promotion la loo ci mun ci am alal bi ni nga ko téye di nga ko tàllal da nga yuuxu da nga jooy bis démb am na ñu daan théâtre vingt ans ci kanam dañ doon yar ñiy théâtre ñuy théâtre ci suñuy aada ak ci suñuy jikko di yaraale nit ñi mais léegi théâtre yépp mbon la yàq la bon la tasaaroo la léegi jaratul kenn di jënd film porno xaaral sénégalais li mi ngi la koy defal mbokk yi fan la jëm fan allahumma ahdina fi man hadayt وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا